وقدمه أمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي أك بوكي bokki taalibe yi yépp ñu ngi yëkkati bàyyi ko si jëm ci tëdd jii di soxla Saybata Aydara bint Muhammad Rasulullahi al-Mahdi Abdullahi yaqin al-mubarak tëjël xaada bi na turan ñu ko sama borom doole bàyyi suñu kanam bu baax tax aw fanam mboolem naal yi nga xam ne naanaa ko ñu diggee waajuram mu tëdd ba mu àgg lépp si sagoon di ziar bu baax kilifa yoon wi Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir ñu toog tey si jotaayu sëriñ bi alayhi akbaru ridwaanu rabbihi baaxil xaddiim xam ko saa borom boole dëgëral di ziar bu baax suñu am di Modou Mbende Fall ñu toog si jotaayu Seydina Ibrahim maam Cheikh Ibrahima Fall xalilullah baabil muridin sama borom doon na taxaw bu baax ak mboolem njaboot gi yëpp tey ku tëdd ki ñëw na ngaay te jëm yàlla suñu borom subhanahu wa taala tax jëm ni ku ki di sant bu baax suñu bunt si dëkk bi bu Cheikh Madiagne ni dox ak ci seen pas-pas ci seen farlu ci seen bëgg lu baax ñu ñëw fa ay yoon yoon sàkku si soxla si li mu jëlaat tànkam bu tëdd bii teg ko si pàkk bu sell bii mu nangul leen ko mu dëppoo ak tey jii si gaawu bi ndax moom kat sëriñam bu baax la di seen mbàkki génn da ko doon wax ni ko la neex mën ngaa dem ndax koo xam ni fépp foo xam ne teg na fa tànkam lëndëm bu newoon bu fa newoon fa newoon sa borom ko doon donc loolu la sa def sa jëmm ji kon jëmm ji di soxna Saybata moom la sëñ Abo Madiane ibnu Cheikh Mouhamadou Amine Bara janoon ne ko soxna Saybata waxuma or waaye jamaan jamaan ndaxte da ko fekk si yëmbal mu teral ko suñu aboo def lu nekk àgg si na garab àgg na ba wax ni ko fekkoon tey rey nit dagaloon na dinaa ko def ndax sa daraja si yàlla àgg na fa suñu aboo wax na ko moom lii bu rey nit dagaloon dinaa ko def tey jii ngir sa daraja si yàlla àgg na fa danga yéen ñëpp na tëdd

soxna si ni ko suñ aboo di nga toog si kaw mun ko fii baax na bi soxna si waxaatee mu daal di tàng daal di gëdd bëkk ne bi mu àndal ni ko yow de xam nga ma gis nga ma rey fi ay nit ñii ma la leen leen daan naa fi ay dëkk si képp ku koo xam ni tooñ na ndax mus ngaa gis ba ma dalee ànd ak ba léegi ma def nii si génn kilifa bu góor waxantuma ak bu jigéen bu dee mun ko soxla say bata bu ma toogee si suuf xam naa lu tax ma toog si suuf xam naa la te xam naa sa baay te dinaa dellu si waat wax la sa ëllëg sa waxtu wa jotal mu dellu si waat bi mu dellu si waatee ni ko damaa am benn bis ma riñaan ba sori lool daañu làpp si géej yàlla yi ma sonn fa lool mënu ma fa génn sama bopp mboolem gaa bax ñepp ñu ngi may romb waaye amuñu dara jey mën ma fa génn sa jëm ji mo dik ni wax xanaa ci bi sañ aboo ma ne ko ankay nee sa loxo bi tawé ko melni élastique fekk ma fama rek ni ma sa safeet génn ma tëj ma la nekk ni ak yow kóllëre àdduna ak àllaaxira moom sañ Sidna sëñ naa ku fonkoon jëmm ji la ku fonkoon soxna say bata Seydina Alassane Salam ana sa borom doon ñu tax si xëy si na suba teel lu ko daaw soxla sumay sumay topp te damaa bëgg a yàqal su ma demee si géej bu ma defee jën mu def jën lu ma soppli ko mu soppli bi demee ba juróom-ñaareel asamaan amul daraja yi àgg fa waaye ñu ngi may ëpp si juróom bëgg nga ñaanal ma ko ñaanal ko ji wax sama mu ñaanal Al Salam moo ma nett li si làmmiñam ni ma sa guddi ga mbooleem la ko toppoon lépp ñoo lañ topp man ak man ak ba genn garab ne ma yéeg parce que njobbaxtal waaye amuñu dara jey fekk ma fa ma nekk yor nañ ay fitti baatin yoo xam fitti ñu may romb ni jot ak ñu naan piw piw piw piw xanaa def samay ñaan fajar sëñ asan salaam daal ni ni ko def ak ko sa borom la musal mooma musal sa borom la musal fekk na soxna su gaawaan bintu xaadim rasul fekk ñu ngi ko naan ab mat laa nii si Touba si këram ci bi mu gisee soxna si da koo këcc ñu bokk ñoom ñaar lal bi mun ko sa dikki gii bett ma ndax nii laa gis bii nga def weer tiim soxna mel ngaabu loolu bokk naa moom benn néeg dañ demee ba dal lu war a des ñoom ñuy jëngante dal bi ku nekk naan yaa ngi tëdd si kaw ma tëdd si suuf waaye soxna Mbène Diaw dina ko yaa tëdd si kaw ma tëdd si suuf ndax sa bàyyi mooy Muhammad Rasulullah loolu suñ tubaab di waxal. Cheikh Saliou Mbacké noonu waxtu wi dem bi sëriñ bi waaj a dem boobu mi ngi si wàccaay. la ànd ak soxna si Touba takkusaanu suuf ñu ngi ko fekk si kees gu ñuy wax Matlabul Fawzayni moom képp mu wéet fa lool ay ñu ngi di màkk penku bi bi soxna si dugg see dafa dem toog sa ndijooram si ak fauteuil la toog fauteuil bu xonq kenn wéttiluñu fa lu dul ay jàmbu jóg waaye sëñ bi mi ngi teg daal di daal di penku la nes tuuti benn ndongo daal di ñëw si ndijooram mu daal di daj ji benn paquet biscuit di ko jox waaye jox bi mu koy jox wutalu ko at te xoolul tam fi mu fi muy def moom suñu seen ba timis bu ñu noddee si jumaay Tuubaa ji timis jëmm ji soxna si dani jëlal benn moket nga lalli ma ko damay julli timis ma daal di jóg daal di lalli benn moket mu daal di jóg taxaw ñetti ponkal daal di dikk ni ko fii sëriñ bi doo moo fee judd ku dul sëñ Saliou bi judd te sëñ baa ngi ñu topp may leen timis ñett rakk la bàyyi leen ko mu julli ñu tontuwaat ma ni ma fii sëñ bi doo moo fi julli waaye moom tontuwu leen dafa jekk-jekk moo ñu xaaral ko fa ba sa taw bi mu ne allahu akbar ñoom ñëpp a dellu ginnaaw moom sa bi mu ne allahu akbar kenn sañatul dox diggante ma penku bi ñun ma kon yow nañ dem fële ba ñun daal nañ dem fële keroog moom sëñ bi képp ñoo bokk julli foofu Cheikh Abdoul Ahad noonu rab yi nawet yëpp yóbbante nañ ko ni ko dañ lay yóbbante si Cheikh dañoo bëgg nga waxal ñu ko mu defal ñu benn mbalka moo xam si yoonu Daaru Muxti moo tey fii ñu wax forage Baye Laat baatin ba si moom mii la bàyyi bi soxna si ñëwee Touba jaar si Sëñ

tey moy forage boy nat kon am ngeen gan gu reey gan gu mag ci yalla sun borom subhanahu wa taala bok ci salihat yi nga xamni di gëna mag ci yalla si yàlla àdduna ak alaxira ji mujj tëdd ji si la bokk kon na ngeen sant yalla bu baax ni ko sëñ Madiagne waxe ko tek ko bët rek sa aajo faju na àdduna ak alaxira teg ko bët rek Cheikh Abdou Karim makarimul axlaa da ko waxoon ne ko yow de bu ñu nee benn si yow dem wër àdduna dinañ wër wër wër ba jeex ñëwaat si yow ni benn rek si yow Cheikh Abdou bi muy sànc ndindi moom mi la àndal néeg bu nekk mu ubbi fa ni ko ñaanal fii ba si néegu boppam waaye lépp nag واجب المتدبر محمد رسول الله المهدي وعبد الله اليقين والمبارك وكل كان خام لو مدام انا ارام نا سي مبولم ميندي في دنج لي بروم بارات باخ انا ارام نا سي مبولم ميندي في ني خام دارا سما مبير ولا ني خام دارا سما جيم ني سا بروم ارام لا لول نين نيكوما كو ني وارا خام bu fekkoon nekkoon naa ku ñu war a xam ne ne ñaara may xam ñu fi topp nañ seen i waajur gis nañ seen i mbokk waaye boo ñëwee si gis ay waajur gis ay mbokkam nee àdduna di tukki du yàgg yàgg ba kenn ñëw fi moom ñoo bokk moo tax ma ni Abdou faqat wax njabootu boppam gii ni yéene seen i mbokki bopp ndax du yàgg ba ngeen gis bàjjal du yàgg ba ngeen gis maam du yàgg ba ngeen gis ndijaay ci benn jëmm képp dana kenn laa àdduna waaye kenn laa alaxira fan la bàyyi ko ardul ijaz makkatul mukarrama ak madinatul munawwara 1880 la borom bare bi gën a jamono ci kanamu waajuram yu tedd ya Abdullahi ak Amiratu ñoo ko meññ mu tudd Muhammadu bi mu gënee jamono si la saa borom moom ni ko fi nga fenke doo fi sowe malaykatu mu xare bi foofu lañ ko daan fekk di ko ban ay garabu njëng bi nga xamee ni nag app bi jot na si la jóge nag ijaas war a nag wu ci saw jant waaye nee na boobu ñett lañu de ñaar yi dañ leen a wàcce si der bu ñuul mu sintuwaa ak Cheikh Ibra moom ma nga si der bu weex war a fekk si ñaar ñii dafa guddi moo tax si la jëmoon teg Cheikh boobu mi nga am fukki at ñett bi muy ñëw ndànd faal boobu Cheikh Ibra mi nga am yëg-yëg bu kawe mu ngi dox di dem di bàgg naan ah faal nar la am gan goo xam ni bu doon rabu àll ma sañ a wax ni kilifa ñay la.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 1893 rambaat bi mu ngi toll fukki at ak ñett fukki at ak ñett fukki at ak ñett xanaa mineur la ci la jëmmanteeg Cheikh Ibra ba ñëwee seen jàmm sant ba dafa mel ñii am na fenn fu ñu xamante woon jàmm sant bi yàggu lool Cheikh Ibra mi ngi naan ko Abdoulaye larub yàlla bi Abdoulaye larub yàlla bi waaw loolu tax a jóg loolu tax a jóg jox ko si si ndigal yàlla suñu borom subhanahu wa taala Cheikh Ibra daal ni manees na ko waaye borom barab bi dafa rëdd ñetti rëdd si kanamu Cheikh Ibra déglu leen bu baax ñett rëdd la ko tedd ki rëdd rëdd bu njëkk bi mu ko àjjana taxul suñu waa àjjana de mu ko mbooleem ñi ma la yaakaar àdduna ak alaaxira maa ngi jëloon seen i këriñ àjjana ak seeni i mbooy te ñu naan fukki tam ñett ko ragal sawara taxumaa jóg ñetteel bu ko bëgg mbooloo taxumaa jóg seeg ni ko bisimilah jànkoon la tax a jóg mu ko xanaa bëgg ëllëg yawmal xiyaamatal akbar bu ñu ba góor ñëpp télé ma jóg jag yàlla ñëpp seen jàmm jugal jàmm na ko ko ngan de ah sama gan gi doy na waar daanaka waa àdduna dañuy yaatu yaatu góor ñu bëriwuñu xanaa man ak sëñ Bamba borom barab bi tontu ko ko yéen ñaar ma tax di wax Mouhamadou Abdoulahi ni ko yéen ñaar yéen ma tax di wax yow ak sëñ Bamba ñaari ngeen man kenn laa waaye yor naa ñaari tànk sama ñaari tànk yi laay teg seen ñaari ngir yi àgg fu ma kenn dul fekk moom Cheikh Daani bisimilah jàmm ñetteel bi ñëw bi Cheikh Daani ñetteel bi ñëw na Mouhamadou dani olof dafa wax wax bu yàqu olof dani ñaara xam di jàngee bi ak Cheikh Ibrahima dana loolu wax ju yàqu la dana ñett xam ñu ko kanakkan muy xam naa sëñ Bamba xam na Cheikh Ibrahima xam na moo tax Cheikh ni ko gërëm gu yàlla gërëm moo nag sëñ Bamba moom lañ saa borom fayee sa jëmm ji gërëm yàlla gërëm moo sëñ Bamba moom lañ saa borom fayee sa jëmm ji Cheikh ne ko doom nañu wét muy doom jóg bi yeex jóg bi yeex macha allah bisimilah jam gis naa ne ndaal tànk li ba nga jàpp ba tas sa sawet juróom-ñaareelu suuf ndaal tànk li ndaal bopp baa nga ba juróom-ñaareelu asamaan te loolu siif la jàpp si mbagg ñi loolu ñuy wax may orang borom barab bi jàpp ne si moom bi mu jógee mi ni baajow ndax diis waaye lu gaaw gaaw sa borom déy na ni ko boo jëmoon teg Cheikh Ibra danga ko nëbbu sa bopp nee na boromam ni ko na nga ko nëbbu sa bopp te nag na nga naxtaan ba mu nangoo la a

lu Cheikh laaj bi ton sori sori si yàlla rek tontu bi taxaw du gàtt du ñu xaw ma du denc-denc ba mu desu ko benn laaj moom Cheikh mu ne laaj bi su ma tontoo duma ko làqati maanaam mu làq laajam dana ma xam tontu waaye damaa dem ba di ko bëgg a wax fëgg sama mbagg na bi ma na Seydina Jibril na ko waxee du la ko ko waxee ko xam ko ko wax na ko wax na ko ab teg mu daal di songaat bu métti Abdoulaye xam nga ko wax nga ko wax nga ko fan natt naa si xam ko waaw di ko borom digal dañu ko naxtaanal booy far Cheikh bi daal ni ginnaaw mu jënteel laaj bi tontu ko kon des na ko mën a natt boobu de Abdoulaye yàqin mujjee laaj waaye nag jël loolu xam naa ko dégg nga li wax waxuma li Cheikh bi mujjee laaj waaye na ko jël xam naa ko أنا مني لاهو دنيا وخبرها صابر دما خمر أدنى فم تجاب وخبرها أقول لك جيت سوى على من ربي مديك خمر ما الآخرة الآخرة وبعدها تجنبني إلى أجل طويل بعد الآخرة أفعل من تبدي تبدي يعني تبدي adduna ak alax ñëw ne la baax nga laaxira nit Mamadou dina ne du nit bokkuma ak yéen Adama bokkuma ak yéen Awa yàlla ngeen ma toppee yàlla laa diggaale gi yéen Adama jii ngeen soq ko ñaari Adama jiitu sama kanam alal bu njëkk nga ba ko sama di sàkk nga xam ne booba sàkk ko bu ne projet la booba ba ni ko maa ngi bëgg a sàkk barab ñuy wax daaru duniyaa su ma ko sàkkee ba noppi dinaa fa yabal ku ñuy wax aadama bu adduna projet la dina aadama bu njëkk bi koy sàkk maa nga fa ma nekk ñaari kuréel ma seet ñu ngi ñëw huwa huwa huwa ñu si des ñu ngi naan bihi bihi bihi nan nga mu junni at mais si ñetti junni at si lañ defar jëmm ci ñetti junni at ndax doomu aadama foor ba mu des ruuj gi nee na ba mu noppee nee nañ ko cas te nee na aadama Mamadou Abdoulaye Ndiakhate nee na ñetti matière la saa borom daje si lañ ko tabax muy leer ak ban ak bakkaru iblis ñett ñi lañ mooy mooy doomu aadama biñ ko tabaxee jëmuj ba man ñetti junni at nee nañ ko cas yóbbu ko digg àjjana tëral nañ ko fa tëdd na fa ñetti junni at doon am néew ko solee ruu gi dundaan na fa yeneen ñetti ñuy wax bàkkaar mu nekk ñaata juróom waaye wax na lu gën a sori loolu Mouhamadou Abdoulaye Yaqin dani wallaahu xalaqa nii bi noorin min nuurin ila nuurin fi awali qabla xalaxal sakkoon na ma nekk ak leer jóge si ak leer dem si ak leer si bu njëkk lu jiitu muy sàkk dara lu jiitu muy sàkk dara ñu teg jinne malayka mu tey waxaat ni wallaahu maanaa bi awali saa borom naa man si bu njëkk wa inni mahallaahi abadan te maa ngi ànd moom ba faaw kon yaa ayyuha naas la wax yéen nit ñi laa tajhaluuni bu leen ma réere li annakum in tajhaluuni bu fekkee réere ngeen ma la kuntum min al xaasiriin di ngeen bokk moo wax ni al xaddan kaanat fi yaddi moo wax tam bis penc du fa jariñu lu dul ko ànd ak ñun lu dul ko ànd ak moom moo tax Cheikh ni ko Abdoulaye mën ko faal mën ko yaay sama doomu yàlla ak doomu yàlla sëñ Bamba danañ ko am doomu yàlla rek a wóor wala fi baax yaa ko fi def lu fi bon yaa ko fi jëlee taxu ci woo dara Abdoulaye yaay sama taaw taaw bu noppal bàyyi Abdoulaye yaa ma tàqaleeg tekkale yow ku la am kenn du ko tekkale kenn te maa la am lu nekk defal na ko si ba bi muy waaj dem si woo na ko ñoom ñaar ñu tëju ci ama tam sa Chine buñ ko wér daal a pay juróom-ñaar waaye xam nga ku ma yaay kan te ànd nañ fanweeri at ak juróom-ñaar 1893 ba 1930 ñu ama tam sa Chine buñ ko faal ndax ne nga wax la sa bopp Cheikh bi ne ko may naa la wax ma sa bopp mu ne ko fi ma seen yam ak yow mooy Abdoulahi mu njëkk di Abdoulahi mu mujj moo leen sama borom bind lépp maa ngi ko téye sama tenk wi cheikh bi ne ko weddi ma ko sëñ Bamba sama sanga bu weddi ko àdduna li muy yaatu yaatu yéen ñaar ko waat wax ma sama sanga bu weddi ko ndax gisoon naa Rasulullahi sama ma te jëmm jëmm gisoon ak sa jëmm ji mënu ma leen a xàmme Abdoulaye kooku lam sol ak lii nga sol ko lu yàlla bind sama jëmm ji tax du yàlla bind borom bara dana ne law laa shaxsi maa axlaxu daahu shay an bu fekk loolu du sama jëm yàlla du sàkk dara Cheikh lu tontuwaat ko ni ko atum yabal ma du bi si misaal ma tekkee moom yàlla suñu borom soxla boo ba liggéey bi mat Mouhamadou Rasul dina la gane si jox juróom benn fukk ak ñett du du ko laal yoo du ko laal amul takk leer diggante ñaari mbagg yi fii yaatuwaay yi un mètre xar kanam gi nit mënu koo xool day day mu mu mu lu ko neex lay mel suy wax day suñ wax do bëgg mu nopi ay kuréel kuréel ñokay wër limi wax ak ñi ci yalla du bokk ak ñi muy wax ak ñi du bokk ak ñi muy wax ak ñi dara may ben dom faqat ci yalla suñu borom subhanahu wa taala waaw 1924 bi jëmon tek sëriñ bi téeméeri junni ngurdu ñaar ak ñaar fukki junni ngurdu ak ñetti junni ngurdu da def ci agal gaal boole si fukki fas sa ñaar fas wu nek mu tak junni sa labga ñetti baa ak kay sàmm bàyyi ñetti àndaari urus ñetti àndaari xaalisu gan ñetti mbàjj bi mu bind si liimaan bii lislaam bii lixsaan taawam solo màgget fukki njagamaan ak ñaar fukki xale mbopp ginaar ak juróom-ñett bu bàyyi ko Cees yor yor bu teel war fas bu ñuy wax alburaax parasol bi ñu ko tiimale rek doy na ni ab néeg muy liwaani xam bi parasol bi da nga naan haza wa haza illallahu laa ilaha illallah amana rasulullah na naan laa ilaha illallah mahdi yooyu laa ilaha illallah amana rasulullah parce que ñàkkutee xet di gas naaj bi tànk jépp cheikh bi ubbiwul maam cheikh ubbiwul bañ demee ab diir seen cheikh bi dóor mu dal di fale bi mu ñëwee ba yem si jëf ji moom cheikh bi rek bëti oomu bii moom la sukk ba mu laal suuf mu jógaat bisimilah jàmm am naa jaaxal nga ma jaaxal te nga ma jaaxal nga ma jaaxal te nga ma Cheikh ko wax loolu ba tey mi a dañoo bokk si jeexatu badar Cheikh ko fas yi dañoo bokk si jeexatu badar mun ko sama xama laa leen dencoon mun ko nañ ko yóbbu caaxoo mooy tey xuru mbàkk waaye téeméeri junni ak ñaar junni ñeent dañ ko yóbbu sëriñ bi takk san suuf si la jëmm ñu gisante ak sëñ Tuubaa bi sëñ bi génnee ñu la jël gaal gi indi ko ba si wetam sëñ Tuubaa jël loxoom bu tedd ba teg ko si kaw gaal gi daañu lii de li si biir gaal gi mi ngi naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullah góor yàlla yi képp koo xamante ni yaa ngi tànt bi na nga ñëw fekk bi sëñ Mor dikk jox ko addiya ngir jëmi Serigne Touba ak Serigne Fall ak Rasulullah yàqin ay dara képp koo def sa aajo dina faju bàkk Serigne Fall képp koo xamante ni li nga am képp koo xamante ni li nga yor mën naa ñëw fii ci addiya ji na nga ñëw fekk sëñ Mor teral ko ngir jëmi sëñ Bamba ak maam Serigne Fall te xam ne képp koo ko def balaa at mi yëg delsi di nga yokk ci doole sëñ Bamba ak maam Sara Fall barke Rasulullaay al yaqin ay dara góor ak jigéen mag ndaw dajale addi yi ngeen indi ko jox ko sëñ Mor bii ndax kat lii muy wax ndimbal la ci ñun di ak defar rawatina nag soxna su tedd si jóge ba Thiès ñëw fii nga xamante ni mbooloom mbooloom ngaay gépp dana waroon a jug dem fekk di ko kon ñëw bii mu ñëw fii ndimbal la ci dëkk bi ndimbal la ci ñun nii كيف كوفينا كرك نيكتي أديا نمّا نطلو بحنا بكن خير درمك نادرمك نمّا نطلو ننو فك في سن مورجكو أديا قلت مسلم توباك شيخ إبراهيم فار رسول الله عليه يحكم أيضا تبارك الله رسول تاني جي ننيب نيو ننيب نيو درمك نادرمك دولمي درم نمّا نطلو رك من يوم بكر لوكو قلت مسلم الله عليه يحكم أيضا بكر الله رسول تاني lu way gëna bëgg bari na la rek ak magal gi ñu nak man na ñëw bakkanu fi képp ku ko def sa aaju na fa ñu dara ji Cheikh Ibrahima Fall bu yàlla yi fa yi jigéen ñëpp na ñëw na barte gaaw na barte gaaw lu way gëna bëgg bari la déko na ko joxe na ñëpp ñëw

Sëñ Tuubaa jëlee loxoom teg ko si kaw gaal gi. Sëñ Tuubaa mi ngi naan si biir gaal gi mi ngi naan laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasuulullaah. Sëñ Tuubaa ngi nii fan la bawoo. dañ ko jëm jee ba fi indi. sëñ bi nan lañ ko tuddee. ñu ni ko dinañ koy wax kay Abdoulahi ñaxe bàyyi ko woon Sëñ Tuubaa ñu nii baramba dane abdun mubarakun jàmm bu ñu barke la ñu ne ni ko Abdoulahi mu ni kenn woyul Abdoulahi mu ni ba muy ñett yoon sëñ Ablaye xaar sëñ Ndiaye Roqeya sëñ Mbay ñu ne ko chef bi boole lool sëñ Ablaye xaar ñu ko wuyul yow la ko baax yi waxal buñ ko mën rek tudd ma fi Abdoulahi sëñ Tuubaa ni ko Abdou foo Abdou Abdou foo Abdou mun ko si sa biir si sa biir Abdou foo Abdou mun ko si gën a mun ko yàqin yaa ngi sëñ Tuubaa ko yàqin yaa ngi borom barab bi nee na mën a busaa bopp ni ko dañuy bañ ni ñu ne fekk ëllëg du doon ñun sëñ Tuubaa ni ko sago mos ni yawa yawa sega moos ñun kuñ yawa yawa ni ko yaa ji al ci saa borom wóor daal teg si ne ko si biir saa borom nga fagoo si biir yàlla foofu nga fagoo. borom barab bi nee na ba mu koy ba ma koy wax xamal xamaloon naa ko saa bopp bu yàgg waaye su ma tëboon te wax ko ñi ko wër seen dañ koy wetti ko wetti am moom mu ko bopp. bi sëriñ bi noppee dafa jàpp si loxoom ne Cheikh la defoon ñoom ñaar ñu tëju waaye bi yoon dara sennu fa seen diggante dara la génn tëju nañu ab diir biñ génnee sëñ Tuubaa woo sëñ Njaay Roqeya sëñ Yaaram Mbay ak sëñ Ablaay Xaar ñu ba doon demee nee leen Cheikh ji bokku fii ndawal sa borom na ko taxawal wan ko mbindee fi na ko taxawal wan ko mbindee fi bi ñu bàgg dama ko dikk biñ gisee sëñ Yaaram Mbay Yaaram Mbay lu sama sang ba wax enfin ah, nee na bokk fi nee na jëmm ji bokk fi ndawal yàlla la nee na ko ko mindee fu ah, ko ndaa lay dëggam da ngeen dégg Mahdi yu ñu ko waa Fall mu ngi jëmm ci sama reerukaay waxoon naa la ko am na guddi goo xam ni jëmm ji xees pecc dañuy cëpp sama ëtt bii sol ñetti mbubb ñu ne Muhammadu Rasulullahi nii suñ tubaab ne ko sega moo saa borom bi juum waxal na dina ko indil bët laa xanaa muy kaaba gi waaye dina ko indil Muhammadu Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam moo tax borom barab bi nii inni xaatimu nabiyyiina fii dunya wa imaamul mursaliina fil aaxirati kan moo wax loolu kan moo sañ wax loolu suñ tubaab si yéen a seqal kan moo sañ a wax ni fa Touba li man wax naa fii dunia ila axirat kon responsabilité boobu xoolal sañ-sañ boobu. kan moo sañ a wax ni li am na yowmal qiyaamati yowmal lazi laa yanfa'u shay'un siwa maanaa bis bi ci nee dara du fa jëriñ lu ñu ko ànd ak ñun. sahabatul kiraam ñu ko toppoon. lan nga waxoon Cheikh Ibrahima ni ko ñii duñ jaar si sukuraat duñ jaar si sukuraat te kenn si ñoom du fi bàyyi ko tamar mala see kër àjjana ba noppi bi sëriñ bi dem ci wam sa sin kataballahu tabaraka wa taala an na mbéyt lalaram tarfahul malaykatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam

tabaraka wa taala anna baytul haram tarfahul malaikatu ila tuuba dafa wax lii wa fiihi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam waxee amul wax loolu suñ tubaab bind bu ñuy wax tuuba su gi say mën a joxoon fas nga dem ba foofu nga jàng ko ne damaa bëgg gis jeexutu abyaat yi tuuba luñ lay tontu buur abdullahi sama buntu penku waaye mi ngi jeexal sama buntu sow dëggal wax ji nee na Touba pàkk Touba ba mu daj kàpp mi ngi tàmbalee sama buntu penku jeexal sama buntu sow daje nañ ci njaareem mboolem cheikh yu mag yëpp mu toog seen biir kenn ku nekk yaa ngi wax li leen sëñ Touba defal si ay ngëneel ñu jóge fa di xemeem àjjana mu daal di jóg bi mu nee bëri jóg daal ne kaccal ma sa la wax kaccal ma si génn leen ma si bu yéen li ngeen am dañ leen ko jox waaye man li ma li ma te àjjana jii ngeen di xemmem xanaa xam leen saa bu may dox si kaw suuf bu may dox si kaw suuf moo leen ñu ngi risu sama bopp bi si kaw suuf wax ne ku ko wet nañ ma jub indi léegi ab sarbet si borom gaawaan ma nga woon sa di yëkkati dërëmu dem joxe bi borom barab bi doxee ñetti jéego ne lu mel ni xeetu pom ne ko mu bu bàyyi ko àjjana daal di put si kaw kaale parfum bi doomu adama attunu si la ko borom gaawal daal koy demal si kaalaam daw wuti sëñ bu mag bi bi mu bu jub sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daa jël kaala boppam daa di taf si bakkanam daa di yëngatu ba dënd bi ñëw bu ko Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko doom bi ko fi ki ko fi indi ki ko fi indi rek a jëfandikoo di basaat sëñ Tuubaa daal ni bàyyi leen nit ñi mën na ko ñenn mën bi Cheikh Ibra dem këram gu mujj bi Cheikh Ibra dem fii ñu ko def tey si Touba moom la fa yabal te ko damaa bëgg nga ànd ak juróom-benn say saaba na ñor njàpp nga dem xoolal ma fa may tëdd ndax sama lépp leer na am déet ndax saabaram xamaloon na ma ni bu suñ Bàmba amee ñett at ba sàq ko fekk ñett at ñaari weer si des yëkkati daamar jox ko ñu bàyyi ko jaaree wuti Touba biñ egg see si jana yi ku tedd ki daal di wàcc borom sahabatul kiram yëpp daal di wuti fii fekk Cheikh bi nee na ko bant bu ma mujjee dagg bu may liggéey sëñ Bamba maa ko fa samp mu daal di wan penk bi ginnaaw jublu sow dem na ba si jumaa ji daal di dëppaat bi mu dëppaatee ba si jant si si jën wi mu daal di àgg suuf ñëpp àgg suuf mu daal di jël nopp bi daal koy sës si jën wi ñu daal koy móor ñàkk tey xet dana booba lépp li Cheikh di war a fekk si barsax tegal nañ bu daal di ñibbi si njaareem juróom-benn yi mu àndaloon kenn la si la si téye mu sëñ Fallou Gane ga ni ko yaay nekk sama seere li may waxante Cheikh Ibrahima xabaaru barsàq waaye nit ma ko fekk ab na nga dugg si suuf róom bi na nga defum néew maanaam na nga ni pat waaye bu Cheikh dugg see bu dugg see yëg ni yow yaa ngi fi xaccal buñ génne xaccal si man dégg nga li wax bu Cheikh bi yëgee si baatinam ne yow yaa ngi fi buñ génnee xàccal ci maam des maam Cheikh daal di dugg bisimilah jàmm Abdoulaye dem nga ba ñëw waaw Fall ah loo fa gis ko leer la daal ko say kër yi sama toogaay ko toogaay bu gàtt la doon Cheikh la bu ñu ko gis naa ko sama toogaay ko teg si ne ko la sëñ bàmbaam àjjana népp gis naa ko sama toogaay gis naa si ne lu am si ay këram am na say kër waaye ab dër bokkule wu leen ko suuf ki la wax suuf ki ab dër bokkule wu leen ñaareelu xabaar dañ ko gis naa fa ay gaa yàlla yoo xam ne mat nañ sëkk dañ doon seen borom waaye dañoo dingatoon sa mbir seen ñëwoo ñoom li ñu dugg gis naa ne ña nga jël seen seen si sikkin ya wékk ko seen i mi ngi àjjana yor seen caabi mënu ñoo dugg feeg ñëwoo ñoom duñu dugg ay gaal yu baax lañu Cheikh Ibra xat fuxta rijaal Cheikh Ibra xat ju salma jaal Cheikh Ibra inakal kamal wasalta xalil jalaal Ibrahima Fall lam yasal yuxti riqaaba يقضي رقاب في الأذل حتى سمحت في الكمال وما في سبك الأذل من رام مثلك النجس فلا يرى في المجس ذلك وجهك النجس سرواك لك في البصر للخد من سك في البصر آه، من سك في إبراهيم فعل وفيه ترحي الكمال إن لم يتب لزي الجلال إلى عذابك jotalu xabaar jotalu xabaaru barsàq ñu ko booleen barsàq ñëpp ñu taxaw sa jëmm ji xaar ñeenteelu xabaar ñu ko fee jëm des na tuuti yaay nekk sa digg ba mboolem njaboot bi ñoo lay wëri muy tey ne mu bindoo sa tubaab wax sa xolam sëpp ne ko jërëjëf Abdou boo gisee ñebalax dañoo jigéen waaw jigéen ñi la. boo gisee ñebalax dañoo xam ne amoo kumpa ah, daan ko jërëjëf. yaay sama doomu yàlla doom ji ma yàlla jox. yaay sama doomu yàlla may doomu yàlla sëñ Bamba. doomu yàlla rek ko bëgg. daan ko ginnaaw ngoog yàlla may. may la. jël carte mairie si njëriñam dafa tere ko. ba bokkut ak dara ko borom barab bi nee na sama kàttan si yàlla adduna mosu koo gis wa xëppa lii qudraté ci lam takkun fi dunia lam takkun la kàttan gi ma sama jox nee na ku ma soob nga texe ku ma soob nga texe ci yàlla na ko soob banu israil nasaraan yi mbiram sëñ bi sëñ Modou day géej ay géeji géej la lépp mun tax ak si benn jaxar ay bunti bunti tey ñoo ngi si diggante bunti diggante Cheikh bi ak ak ku tedd am na yeneen ak yeneen kenn mënu ko daj gàmm nañu ba bët set sëñ Tuubaa daal ku gàmm si woon sa yeewi ko mooy nga dem ziar bi Mouhamadou Abdoulaye Niakhine Thiès woo doomu soxna Aminata Naar ñu bokk ko suñu Abdoulaye borom dër bi ñu ko demal nga ziar bi boo fa jógee nga doog a dem jàll gànnaar Cheikh Ibrahima daal di woo fanweeri góor yàlla ak juróom-ñett ni doxee leen njariñ ba Thiès te bu leen soldat bu si kenn soldat si yéen bu leen yeewee da ngeen ñëw bu leen yeewul ngeen toog ñëpp ñu ngi toog bi muy dàq Senghor bi muy dàq Senghor dafa bàyyi ko Touba ñëw Thiès. jàmm gën kër sëñ Moustapha Bassirou tëj fa xalwatu fukki fan ak juróom biñu waree dem Ndakaaru si pare bi si guddi gi 3 heures ma matin la si barab bi mu ba toll si teen bi daal summi mbaxanaam summi ay dàllam moom mooy si tubaab si kaw suuf bi ba bi am lu mu wax barab bi daal di tijjeeku mu daal di dugg moo si am daal nees tuuti taw solo yàq yi fekk ko fa muy solo màgget te jëgante wu sa ëllëg sa la sa la jàll Dakar Mouhamadou Abdoulaye al yaqin dane li am na baatin yi nuurun bi xusra qaysara man kaana fi ummil xura maka taxi si gis ndax nee na yoonu murit yoonu baatin ndax yoonu murit di ko saawal di sàkk sàkk bul àdduna nee na ko sàkk ba noppi nëbbu ko dafa sàkk yoonu mu ne yoonu murit nekkoon na moom yoonam du jiitu sa di sàkk àdduna teg si ni moo leen anbiyaa yi téeméeri junni nañu ak ñaar fukki junni ak ñeent nee ñooñu ñëpp yoonu murit mooy seen yoon Mouhamadou Abdoulaye nee na téeméeri junni yi ak ñaar fukki junni ak ñeent déggal sëñ Modou li ma lay bu baax nee na téeméeri junni ak ñaar junni yonent ñeenti junni yonent yi sama borom wàcce nee na ñooñu ñëpp sama si la mu sama njub si la ñuy jube si sama ndox si la ñuy wa inni abdullahi xultu li jamihi ahli dunia innil mahdi jahran يا أيها خومي فهلمو إن محمد رسول الله نعم، فكون لما يوحد دك دكبر فكون لما يوحد دك دكبر بسم الله سابر دينا وقت من جهر تنين نعم، كيف كما إن دل خم خم بباي كوسيان بو خم يبتنا نعم. خم خم بو خم يبتنا تنو دك دينا جاب توب سلوكا جاب توب دينا سمك دون بعد جاب توب سمك فاتح waaye saa damaa xamal saa borom daahu nafsi jidan saa jox na ma nit ñi wala jox ci insaana nee na mboolem murid yëpp tamit sama xarit yéen mu sañ wax al soo ko adatee lu mu lay jox deux cent أسماء محمد رسول الله نياتا ديسا وتامن إن اليقين ما يكون يقولك خلق الخالق بكل عزيم دي أجي بن دي بن نوسي بن مك نبي صابر جلال مام دفع جلال مام نكو وإنك لعلى كل خير أزيم يا محمد المهدي وإنك لعلى كل خير أزيم كدولة محمد رسول الله ودون سواك من محمد المهدي أي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي boo demee si jaalibatul maratib sali bi taslimika yaa qawiyu alladi siwaatuhu mahdiyu wa alihi wa sahbi wax loolu si tubaab ma muqaddimatul am daa noonu allahuma ya haadi ya karimu ya salaamu ya shakur salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin al mahdi ku wax loolu laysa birru ati dan laysa birru إذا أتى روح الله بعد تنسليم مرتي يخفوش ده كعلم تيسير المحاسب المامون تيسير المحاسب المامون سري على المهدي الهدى منيري وسلم على سراج نوري أفاتي بشر الكبرى وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي ستواهلو سيدنا المختار زي المكان زي الهزي زي الفضل وزي المكان كوحلو جامي الأسرار والأنوار جامي قصده والأنوار في صلاة على النبي المختار اللهم صل وسلم على من هو رحمة المخدات وصلي وسلم على المهدي المهتدي الهادي الهدى مش لك دي ام تسلايت nekk lu ñu jël di sànni borom barab bi soo wax nit waxal ak moom fam xamee waxal waaye soo ko jege yi sànq nga ko bëgg dara bëgguma kenn di jaaree bëgguma kenn di jaaree fi man di dem sawara ndax nee na képp ko xam ne jaaree fi man ba dem sawara doo fa génn bu dul sawara daa dem ba jeex nee na naaru shadidul iqaab foofu waaye nag nee bëgg lu ma kenn sawaar wala yaa xam ne si waa man rabbi yi ilaa bi xulil jannat dégg nga li wax nit ki ak man te ànd gi yàlla lal ko ànd gi nag wax benn ko cëpp dugg àjja digg àjja waaye nag saxul àjjana <laughs> day jëndaat aj nga dem si àdduna ju mujj ja waxam naa leen ko Thiès am na àdduna joo xam ne sama borom na ko ma nga sa ginnaaw alaaxira bokk ak àdduna ji dégg nga sama borom dana ko li annaka dana borom bare bi Mouhamadou Abdoulaye li annaka lakka mulku dunia wa lakka mulku nasara li annaka lakka mulku dunia wa lakka mulku nasara ya abdi anta alhaq والحق أول والآخر وأنت يا عبد الله أنت رسوله وما اسم محمد المهدي هو المقامة والملك لك بخير كبد وما اسم محمد في الأول واسم المهدي هما ملكان في رسول الله ربنا بدنا نياري تيمير نغوف الله أكبر لأن مولك mboolem sama tur tur bu nekk nguur la waaye sama ملك nag wa huwa mulkun mulkun te mun ko peek te mun ko xam yaa jibrilu ñu wax Seydina Jibril Mamadou Abdoulaye yàq dana koy yaa jibrilu yaa jibrilu wa jamiyal malaikati wa inni abdulillahi nee na ñooñu de benn sama benn sama benn jumtuwaay sama jëmm rek bi ko saabaram bi sàkk sàkk bu leen ñoom malayka yi kon noonu tawul ak malayka noonu tawul ak nit noonu tawul ak jinne du nit du jinne du malayka moo tax mu ni walaaw yaxlaxu maa laa taxlamuun saabaram sàkk na loo xam ne kenn du ko xam lan la si teg wa inna muhammadu rasulillahi al mahdi alamanillahu maa laa yualimu naasu abadan nag di sëriñ bi wax ni إلا خادناه ولم يكن ولا يكن أبدا لممكني فربنا بدني waa kan ngeen defe ni moom lay wax ñëpp ni teg mu ni sama jëmm ji moo tax may wax lay si jaawaratu waaw bi Sëñ Tuubaa dem si géej gi fukki juróom laa waaye nee ñoo ànd yoonu géej gi hmm? <laughs> nee yoonu géej gi ñoo ko ànd ba mat sëkk natt buy ñëw mën naa ko waajal natt sàngam a ngi dikk natt buy ñëw nee na maanaam sëriñ bi waajal natt sàngam a ngi ñëw bu dugg ci xur wala xunt may dugg nopp mu doog a egsi loolu damay dellu mbooloo bi mu dëppaat xool sëñ Sambay dégg ngeen mu ni sëriñ bi mu nekkee ci tukki bi natt buy ñëw rasulillahi sallallahu alayhi wa moo koy wax waaye du ko ci dimbali kon war ngeen a xam ni rasulullah ci biir a nekk. leer na leer na leer na. jërëjëf. ok na. inni ati fi xarbi dunia bi axiri zamani li afnaytu dunia. inni ati fi xarbi dunia. bi axiri zamaan yi li afnaytu dunya waaye damaa ñëw si diggante bu xat laa dikk diggante bu xat wala maa fekk ñaari mbër yu boof ma cëpp seen diggante ñu leen man ndokk bañ ko nangoo baqiya moo ko rëdd ci Thiès foofu damay wax soxna si ni ko mi ngi nii moo la ngi nii li tax ñu ñu dem ci soxna si mu may ngan gi moo ko jàppal boppam ci tur yàlla na ko ñëpp xam li tax ñu bëgg kon mooy dañuy bañ ëllëg suñ borom baatin mbirum lislaam baatin la dañuy bañ ëllëg ñu àgg yombal xiyaam suñu borom génne ko ni ko yaay rasulillah ñun ñun xamuñ ko woon boo lëgee sa jàll lu mën a ne man xam-xam laa leen di wax foowuñu ñu dajalewul fi nit ñu dërëm dërëm di kenn laaj koy milliard wala dara yàlla képp tax ñu def ndax ëllëg yomal xiyam am na ñu jógee bar sàq wax ni ko suñ la xamoon yaay rasulillahi ñoom dañoo am martaba suñu borom lañ ko may moo a ngi nii moo xam ne ci bu ñu xamoon yaay rasulillahi daañu la gëm ci adduna waaye xamuñ ko woon ñun nag soxna saa ngi moor a ngi nii wax nañ ko te kees ñu ko ñun waa ngaay ñun nag moom la ñu ndax ñun ëllëg mucc rek lañ bëgg ñun lijjanti wuñu leneen ñun ñun daal li lijjanti mooy fexe ba sëñ Tuubaa Serapal ak rasulilah nangoon na moo tax ñu ni ko fi de man su ma sañoon ñëpp dañuy mucc ñëpp dañuy man loolu mooy suñu liggéey. jërëjëf sëñ Bakhaya 1918 da ko rëdd 1918 nga rëdd Bakhaya bi mu koy rëdd boobu mi ngi yor bantu kànn ya man siyaar bu baax sëñ sëñ Modou Gueye Ndiaye waaw bu baax ndax maam mi tëdd asalaamaaleykum dafa wax ne mucc lañ bëgg loolu moom suñ ko fàgg def na ko nag liñ bëgg mooy wér kenn ni ci réew fa def na ko bu yàgg mucc nañu àddina la ñuy dem fa la ñuy dekkee ba jour ko fàgg mënuñu ko fàgg suñu bopp wasalaam. ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma ma ma ma ma, ma, ma,

لرا لك أموت لم يكن في أي مكان سوى إنت لرا أموت نكل فن نجل في نيوم لكن برام برد جوا محمد عبد الله يقين لرا أموت نكل فن نجل في لأن النجاة لم يكن في أي مكان سوى إنت لا نجاة في داريني amul benn mucc àdduna ak àllaaxira lu dul fi ñun. ba sax si xool xaq ne sama jëmm mooy dëkk sama jëmm mooy Muhammadu Rasulullah sama jëmm mooy Mahdi sama jëmm moom la sama borom yëpp. su ma jeexalee guddi. bataaxal boo xam bindoon na ko ndax 1924 fulkul masfor am na ko ko tudd sànq beneen beneen mbir 1924 li si génn benn xasida jébal ko Cheikh Ibra muy fal yutub ala kulli fabdi fa kullu man haraba minni li hubbillahi fa inni sabartu minhu bi tuurin billahi li am ni maa ñetti xari taslimin xanaa nag xari bi xari islami يكون من ليس له توبة يكون له الخسران والكروبة وتوبة من ليس له مغنى فتوبته الندامة والخسران وكل ما وهنا في توبتي فخصمته مباشرة بربي ببركة قائدنا رامدنا للهدى إلى خالقنا ربنا أخينا قافلنا حبلنا كل من اتخذ خاطر أمان من طيحنا بلا نافقة أسرع من كفر بلا خادرة أمرتكم سبل رشادي تابها وفيا له خافية يغفر له جاخرة بالواسحة جناته آلية خادرة كما له أشعر المستقيمة برحمة هذه العظيمة لله الملك والهزم عبد بالكلم عبدتم ربنا والباري لانه يميت ويهني بحبوركم يفعل ما يشاء لملكه يفعل ما يشاء دعوتكم أيها البرايا لله ورسوله في البرايا كتبته من الفجر ومسس لمن بهته بهجوه من الجبر بشيخ من 1924 شيخ جانكو نكو واخ جي رينا

mu ñëw sëñ Bamba def na ko ñetti at moo tax bi sëriñ bi ñibbee Touba mun ko waxal wax jot na si jeexal yu abyaat yi si la ne katabtahu min al hijr yi wam sa sin mi ngi junj gàddaay bi sëñ bi ñibbi Touba li man mbiri duxu bi la xaati nafs daan ko waxal wax jot na xaalan yaqinu min rabbihi ala xawmihi ayuha ali zaman faxlamu inni abdullahi yaqinu mubarak inni muhammadu rasulillah wa inni xiyaarul xaalamina إني خاتم النبي إن في الدنيا وإمام المرسلين في الآخرة وإني سيد الورع سيد الورع هو ينتهي عن الهوى أنا بمو بقو مك بروح على ما واخد واي بمو بن بروح على ما واخد كم بتاع خبيت جبر كيف إلى جان كيف ينجح سامي سمنيان الله عز وجل تعالى المعيد ومن محمد المهدي نبي الهدى وإني قلت لجميع أهل الدنيا إن علي شيء عظيم في دنيا والآخرة ومن كفره فليعلم أن من كفر الحق من الله تعالى هو داخل من الكاذبين ومن أخذ الكذب حتى مات دخل النار وهو زادم لنفسه إنني محمد رسول الله قلت لكم ومن كفرني ويأخذ خير الله تعالى فهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة أيها الكفار فاعلموا أن كفركم وإيمانكم لم يجب ترك ما حضر الله في أمره ومن كفرني فليطلب رسولا خير رسول الله لأن الله تعالى جعل الشخص محمد المهدي رسول الله والله لا يخلف الميعاد وخلقنا وخلائق بعد خادر وذلك زمان ود شخص محمد رسول الله وهو خاتم النبيين في الدنيا وإمام المرسلين في الآخرة وهذه لم يكن بكيد ولا دواء وليس للعرفة ولكن خدر الخادر عزيز الجبار كما شاء وهو له رب الخلائق وأرسل محمد عبد الله نبي الهدى المهدي في خير الجزء جاطية اللهم صل على سيدنا آمين وجايف waaw barab bi saa borom da ne ko moo leen ñi nga xam ni bind na leen borom barab bi dana ñi nga xam ne sama borom bind leen seen àjjana wóor dana ñooñu dinañ sepp ab tànk ñëw siyaar wa man araada an yakuna min ahlil jannati fal yajri ila indi salihan la borom barab bi wax ba saalika nag wa ismi rabbil alamin képp ko xam sa namm-namm ginnaaw sa bakkan da ngaa bëgg fàttali àjjana dawal nga ñëw fi ñun mu ne lii nag daw gi ngeen daw te nañ ko gaare muy lii nag bi sama ndigal ndigal yàlla suñu borom subhanahu wa taala xëy waxtaan bu tedd bi soxna Maguette Abdou Aïdara di ko des na tuuti yoon dina jóge penku yoon jóge soow ñu daje fi man su boobaa lu mel ni xeetu gunóor ñoo may wër muy oto yi su boobaa nit dina am aajo dem fu nekk du faju waaye su ñëwee si bi indi loo xam ne ñaqam la su génn dina xam ne may benn doom faqat yàlla biñ la demee 43 ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si rajab si la dem si bisu gaaw tàkkusaanu suuf keroog bi muy dem te ni tey ji daay dem muy bisu gaaw la comme tey si tàkkusaanu suuf mu ni sama sama lu ak jant bi ñooy ànd mboolem mala mu xare bi yëpp boobu wàcc si nañu ñëpp mu waxtaan ak ñoom ni bu fekkoon comme ni ma àdduna jàppee dafay dama fees yàlla di wax xanaa ku fees yàlla di wax ba war a wujji sa borom xaalis na tax nga giif waaye lu yàlla bind sama jëmm jee tax fi mi di nasaraan yi buñ buñ ma tiim buñ ko fa dencee ba mu ab juróom-ñaari at si la commandant la mi Pierre la mi ku nekk dégg na ko si histoire de France nasaraan bu mag indi décret ànd ak adjoint bi ñuy wax buffet bi ñëwee ci Macky soxna si soxna Maguette wan ko décret bi ne ko route nationale bi fii la war a jaar waaye sa barab bu bàyyi bi kat moo ñu gàllankoor am nañu ndigal nag ñu ji toxal toxal ko fii yóbbu ko bàqee tëli bi aw am si combat

ya kadil mua itak kabay mua ikil ya alhamdulillah ini ya Muhammad Rasulullah dari dia tinggalkan sebagai kalau dari alam bangun dan pengasyarapan bagi baju mulai bagi biang mulai bagi mulai mulai bagi mulai bagi mulai bagi biang lebih dari terungkup ya, amin ya Rabbil Alamin Islam niksan itu dari sama pekerja sehingga bahasa berubah dari macam Bismillahirrahmanirrahim.